مرتجى منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullah naa sant yàlla julli ci yenantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare ñu dellu siwaat fii ci seen jataay bi ñu leen tudde madinatul ilmi ñu leen koy amalee ci sunu 24 actu di ko amale fii di siyaare mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan te di ñu déglu di leen dellu dellu siwaat nan doon def ci jataay bi lépp lu ci jub ñu sant ko yàlla lu ci jub dëng ñu jéggalu ko bu baax a baax tey ñu nga bëgg a waxtaane nit ki jikko ju rafet jikko joo xamante ni jikko ju rafet la xam ngeen ne yàlla def noo bind ngir ñu jëf jëflante bu rafet suñuy jaamu yàlla ak suñuy yëpp suñuy mbir yëpp ñu def ko ci rafetal ak rafetal nag mooy ixsaan ixsaan mooy lan an taabudullah ka annaka tara in lam takun tara fa innahu yara booy jëf nga jàpp ne yaa ngi gis yàlla même bu la yàlla gisul nga jàpp ne yaa ngi koy gis ndax xam ngeen ne jëf yi yépp mu ngi amee daraja ak maqaama ci sellal gi ak ni nga ko jëfe yonent bi sallallahu alayhi dafa toog ak benn saxaaba bu ñuy wax Abu Hurayra muy nettale xaddis bi ma ne ko Abu Hurayra ëllëg yomal xiyaam ñi nga xam ne ñoom la yàlla di njëkk woo di leen régle ñett ñii la mooy ki nga xam ne daf ko joxoon alal ju bari ak ki nga xam ne daf ko joxoon mu mokkal alxuraanul karim ak ki nga xam ne dafa jihaat ci yoonu yàlla boo ëllëgee sunu borom day woo ki nga xam ne dafa mokkaloon alxuraan mu laaj ko ne ko waa yow sa alxuraan ji nga doon mokkaloon yow de alxuraan ji ma wàcc woon ci yonante bi mu jàng koy yow it yaakaar naa mokkal nga ko loo doon def ci alxuraan bi mu ko alxuraan ji jaamu naa ci yàlla julli naa ci guddi jàng naa ci naafile naa ci def naa lu taxoon nga koy def mu ne ko def ko rek ngir yàlla suñ borom ne ko waxoo dëgg yow koy da nga doon jàng alxuraan ngir ñëpp ne ku mën a jàng alxuraan nga waaye jàngoo ko woon ngir yàlla nee na bu waxee loola malaaka yi dañuy daal di ànd ak moom ne ko yow waxoo dëgg da doon jàng rek ngir nit ñi wax ko ginnaaw wax nan ko nag jeex na loolu nga ci amoon suñ borom nee na mu indiwaat ki nga xam ne dafa am alal mu ne ko waaw yow de wutaloon naa la alal ju bari joo xamante ni defaloon naa la ko ba taxawoo tàllal sa loxo taxawoo ci benn bunt di laaj teraanga jooju maa la ko defaloon mun ne ko waaw mu ne ko lan nga def ci alal ji mun ne ko dama ci doon dimbali samay mbokk di ci dimbali jaami yàlla yi di ci dimbali suñ borom ne ko waxoo dëgg malaaka yi ne ko waxoo dëgg mun ne ko yow koy da nga doon def alal jooju da ci doon def rek joxe rek nit ñi di la tagg di la wax na la yaa mën a joxe yaa mën a def nangam loolaa taxoon nga kii comme loola nga ci bëggoon wax na nan ko jeex na jeex na fi mu toll nee na mu daal di song ki nga xam ne da doon jihaat ci yoonu yàlla ba faatu ca nee na mu woo ko ne ko yow da nga doon jihaat ci ci yoonu yàlla da doon jihaat da ngaa dee ci jihaat lan moo taxoon nga doon jihaat mu ne ko man ko dama doon jihaat ngir yàlla rek ak yoon suñu borom moo waxoon yonante bi moo wax ne ku jixaat ba dee ci yoonu yàlla sahit nga dee su la sang dee su la kii te àjjana mooy doon sa kër loolu rek moo taxoon mooy jixaat mu ne ko déedéet yow ko da doon jixaat ngir nit ñi wax ko yaa mën a xeex yaay jàmbaar nangam loola nag wax nan ko nee na malaaka yi ne ko waxoo dëgg suñu borom ne ko waxoo dëgg da doon jixaat rek ngir àdduna rek ngir yaa mën a xeex loolu foofu bala noo dem fi la ñuy gën a nettalee xista bi sax am na ko ñuy wax xus xusmaan xusmaan kenn la woon koo xamante ni benn xare dafa mas a ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku bëgg a gis kuy dem sa war a xoolal xusmaan mi te fekk na xusmaan ñu bari ci xare bi moo leen rey ñu baree baree bari moom it ñu beleese ko ay jaasi bi nu xaree ba noppi ñu dikk fekk ko fi mu toog ñu beleese ko ci ay jaasi ak yooyu nit ñi di ko wax naa koy xeej am naa ko ah yow koy santal yàlla rek sahit ngay doon ku faatu ci jihaad moom sahit ngay doon mu ne leen faatu ci sa ko xare ci yoonu yàlla mu ne xare ci yoonu yàlla man waaye sir bëggoon a dikk not sunu dëkk bi loolu moo ma xeexloo waaye xeexu woon pour dara da bañ ku not sama dëkk nee na fi mu waxee loolu fi la toog ne suuti diggante bu tuuti rek mu faatu yonent bi ne leen waxoon naa leen ku bëgg a gis kuy faatu ku ku ku dem sawar a xoolal Usmaan loolu liñ ciy jànge mooy nit ki dafa am loo xam dañ ko koo jox ngir mu wut ci mu wut ci àllaaxira waaye du lu muy wuti àdduna da laa jox loo xamante ni ngànnaay loo xamante ni pour àllaaxira ko tax a jóg mooy xoolal ñaari jëf yu baax ñetti jëf yooyu alxuraan ni mu tedde ni mu màgge ni mu mel nga koy def rek ngir ngistal ngir nit ñi tagg la xoolal alal ni mu baaxe nga xam ne jihaad joxe ci yoonu yàlla kenn xamul nu mu toll xoolal dee ci yoonu yàlla ni mu toll yooyu yëpp defoo ko ngir nga def ko ngir àdduna nit nag suñ ko joxee ngànnaay loo xam ne allaaxira war a tax mu tiiree ko daa war a xaar ba allaaxira nit ñi nag ñu ci bari dañoo jël seen diine defarale ko jënde ko àdduna rawatina ñi nga xam ne dañoo jël seen diine defarale ko nit àddunaam loolu nag dara dara dara jaru ko am na akim bu mag bu daan wax ne ñett jarul ñett mu ne ne tayel jërul ñàkk bànneex jërul gàcce àdduna jërul àllaaxira nee dara dara dara àdduna jërul dara àllaaxira moo tax nit ki kon nay bàyyi xel bu baax a baax ne àllaaxira mooy kër goo xamante ni kenn xamul ñaata milliards at nga fay tëdd tëraay boo xamante ni tëraay bu yàgg la boo xam loo fa dawalut woon doo ko fa fekk loolu jëf ju rafet rek moo ko mën a def dina nett li ñaar ñoo xamante ni dañ doon jëflante ci jëflante bu rafet boo xamante ni doomu aadama yi noonu lañ war a jëflante waaye ji nee na dama dikk di jënd benn pàkk ci benn waaye benn kër goo xamante nii plan la kër goo xamante ni pàkk la rek nee na bi ma jëndee pàkk bi ma daal di tàmbali samay sànce di gas suuf si bi may gas ci biir gas bi nee na ma gis ci benn caq boo benn ànd boo xamante ni or walla jama wala lu bari la def xaalis nee bi mu ko gisee ma daa dina ah lii de borom kër gi laa koy jox ndax man bi may jënd suuf rek laa jëndoon waaye jëndaale moo lii ci biir nee na bi mu demee ci borom kër gi ne ko man kat kër ga ma jaayaan pàkk ba ma jaayaan damaa liggéey bi ma tàmbalee ma gis ci benn àndu nee na mu ne ko ah loolu de sa chance la ndax man bi ma lay jaay suuf si laa la jaayoon ak la ca biir waa ji ko déet man it bi may jënd man suuf si rek laa jëndoon waaye jëndaale moo woon lii ñu nekk di ko jañoo di ko jañoo ba dikk ci attekat bu mag mu ne leen ku nekk di ko jañoo nee na mu daal di waa ji laaj leen ne leen ndax yéen ñaar ñi ku ci nekk am nga doom mu ne kenn ki ne ko man am naa doom ju góor kenn ki ne ko am naa doom ju jigéen mu ne ko ni ngeen di def ñaar ñooñu da ngeen leen di dogalal ab sëy seen diggante da ngeen leen di maye te bu ngeen leen maye ngeen jël xaalis boobu ngeen di jañoo ngeen def ko ci seen diggante xoolal loolu tey ak ci sunu jamono ji nga xam ne ku nekk yaa ngi jéem a nax sa morom kiy jaay mu ngi nax sa morom surtout sax ñoo ñuy jaay loolu nga xam ne jaay ay pàkk ak i kër boo leen laajee lu ñuy liggéey dañ lay wax ne la ñun dañuy business business mooy lan alaaxira ndax xam na business ndax yàlla xam na lan mooy business ndax ñun ñiy jëflant sax xam na lan mooy wala nga wax ko ne ko lan mu ne kii homme affaire la homme d'affaires mooy lan mooy waajoo xamante ni dafa sol benn pantalon bu ñuul ak kosom jiital benn simis bu weex ak benn karawaat yor benn saagam di dem ndax loolu mooy kiy def affaire kooku mooy business man def ci ay papier yu bari ci biir saagam nit ki ne ragal yàlla xam ne bu ko yàlla bu ko nit ni moroom gisut yàlla moo ko mën a fay te nit ki kat mënul lekk dara lu dul wër wërsëgam dara dara mënu koo dara mënu koo lekk lu dul wërsëgam. xoolal keneen kii ci teg nga xam ne moom nee na dafa jóge fii aji ji bi mu ajee dem màkka nee na bi ma ajee ci biir aj gi maa ngi ci gis benn paa boo xamante ni damaa jikk-jikk rek ci biir aj gi ma for benn caq boo xamante ni caq lux-lux la nee caq boo xamante ni or la nee bi ma ko fore nees tuuti ma dégg benn góor gu màggat di wax ku for sama caq bi boo dikkee ma jox la nàngam ciy dinaar nee na ma ne ah kon de caq bi xanaa bi may yore de moom la góor gi di laaj nee na ci biir aj gi ma dikk fekk ko fi daan ne ko waaw Euh, caq bii de xanaa mooy bi ngay laajte mu ne ko sama doom waaw bii la de nee na fi muy kiyam góor gi di tekki euh, mbuus gi mu def xaalis bi ngir bëgg koo jox dinaar yi waa ji ne ko baax na mu ne ko taxawal sama doom mu ne ko baax na mu dablu ko mu ne ko nee ko baax na bàyyi naa ko yàlla nee na ma noona laa nekk ba sama aj jeex bi aj ji jeexee nee na ma jàll euh, dem siyaare ci baytil maqdis nee na bi ma fa jógee ma dem baxdaat nee bi may àgg baxtaat maa ngi ci àgg jamonoy timis booba fekk na sonn naa mar naa xiif naa nee bi ma àggee ma jawal ci jàkka ji nee na bi ma jawalee ci jàkka ji ma dem fa bi ma demee ci jàkka ji fekk naa ñu julli timis ma ñëw rek julli bi ñuy julli si gee nag ñu fekk ma fi nee bi ñuy julli ñu ne ma xool ma fekk ma ci jàkka ji daal ne ma ah yow de dafa mel ni yàlla moo la indi te xam naa ne ku baax nga léegi danoo bëggoon rek nga jiite nu gee nee na mu ne leen waaw baax na ma jiite nee bi mu leen jiitee gee ba noppi ñu ne ko ah yow daal tey jii mooy benn fan séentu nañ weer bi ba gis ko ne suba mooy benn fanu ramadaan danoo bëggoon ñu téyele fi rek xam naa ne nga jiite nu naafi la weeru kor yi ba jeex ak naafi la xam naa ne sa dëkkoo fi waaye bu ko defee rek nga def dimbalinu mu ne leen waaw baax na incha allah nee na bi nu defee noonu ma tàmbali di leen jiite di leen jiite ba benn jamono genn góor dikk ci man ne ma mun imaam ji doon jiite fii ci jàkka ji dafa faatu yàlla dogal na bi muy faatu benn xale bu jigéen la bàyyi boo xamante ni xale ba dafa toll ci war a am jëkkër xale boobu nag lan bëggoon boo ko bëggee ñu may la ko waa ji nee na ma ne leen ah waaw baax na loolu de bëgg naa ko nee na ñu daal di dem may ma xale bi nee na bi ma mayee xale bi maa moom ñu nekk daanaka di bëgg a am at nee na xale bi ëmboon nee na bi mu amee doom jëli ci ak wéradi nee na ñu toog ba benn ngoon xale bi xawa a noonu di génne ay bagaasam di génne bagage yi di teg di génne ba ci yàgg mu génne benn caq bi mu génnee caq bi ma ne ko ah caq bi nga génne dem mel na nuroo naa caq ba ma faroon ca aj ga te génn góor daa di ne laajte ko ma daa di ko koy jox nee bi ma waxee loolu xale bi tàmbali di jooy di jooy ma ne ko waaw looy jooy mu ne ah man de caq bii sama baay dafa eh, sama baay de bi muy laata faatu daf ma wax ne ak a neexoon booy am jëkkër nga am ku mel ni ka foroon sama caq ba ci àjj ndekete caq boobu mooy caq ba waa ji foroon góor gi bi muy dem li mu dénkaane woon dafa waxoon sama doom ji ne ko ak neexoon booy am jëkkër nga am ku mel ni ka foroon sama caq ba ci àjj kookee foroon caq ba ndeke moo ko takk góor gi nee na ma toog tuuti bi nu toogee ay fan yu néew xale bi fee feebar bi gën koo song mu faatu nee na bi mu faatoo ma donn kër ga donn waale alal ja ba donn waale caq boobu ma foroon xoolal loolu nga xam ne jëflante bu rafet ak yàlla ak bàyyee mbir yépp yàlla sa bopp wuute nag ñi nga xam ne tey ku ko foroon wala nit ñoo xamante ni lay seen itte mooy ku nu mën a nax nax koo xamante ni buy jënd wut balance yu baax buy jaay wut ay balance yu bon buy jënd wut ay balance yu baax koo xamante ni bu xaalis yi buy ñuy wecceeku xaalis nga xam ne saa buy jënd lu bari la bëgg a jënd ci yow lu néew buy jaay jaaye lu bari koo xamante ni sa mbir yépp ci naxaate la nekk sa jëflante bépp amul lu mu doon lu dul boo xamante ni dara sellu ji nit koo xamante ni fi ngay xam nit ay mbiram sell na mooy nit ki nga xam ne dafa toog ba xaaju guddi ku nekk xam na ne ba ñetteelu kaar bi wala ñaareelu kaar bi ci guddi ñun ñëpp ñoo dégg suñu borom addis bu mag yonente bi ne képp koo xamante ni sunu borom bu nu demee ba asamaan si nekk ci ñaareelu xaaj bi sunu borom day wàcc ba ci asamaan su mujj na ana ñi nga xam ne dañ maa tooñoon te bëgg ma leen nan ñëw ana ñi nga xam ne dañ doon sàkku wërsëg te amuñu ko nan ñëw ana ñi nga xam ne danoo defoon ay bàkkaar yu bari bëgg ku leen jéggal nan ñëw ma jéggal leen ana ñi nga xam ne danoo bëggoon ak wér danoo bëggoon danoo bëggoon noonu la ko sunu borom di toppee ba aajay doomu aadama yépp mu ne ku ma tàllal sa loxo ma kii ko waxtu woowu nag bari na ñu bari ñoo xamante ni duñ ca def lu du tëdd nelaw waaye jógoon jullit yi bu nu xamoon seen bopp problème bu nu am bu nu toogee tànn ñi gën ci ñoom ci waxtu yi nga xam ne mooy waxtu yi gën ñu toog tàllal yàlla sunu borom amul dara lu ñuy bëgg loo xam mënta saafarawu amul dara dara loo xamante ni danañ ko bëgg te mënuñu koo saafara xoolal jaam bi nga xam ne dañ koo jaayoon nga xam ne dañ koo jaayoon ab jaam la woon boo xamante ni xam ngeen ne jaam ku ko am ci lislaam bu la neexee nga jaay ko jaam jigéen la waa ji dem jaay ko bi ko jaayee ay nit la ko jaay ñam ko jaay jaam bi mu ñëwee ci kër gi bi mu demee ba guddi gi xaaj ba ci ay trois heures du matin wala quatre heures mu tàmbali di waa kër gi jóg leen julli nee na bunt bu moo fëgg na leen jóg leen julli ñu ne ko ah fajar dafa jot ñu ne ko déedéet fajar jotagul mu ne ah, kon baal ba ci kanam nee na mu demaat ci keneen fëgg mu ne ko fajar dafa jot mu ne ko déedéet jotul nee na mu fëgg nee na mu dellusiwaat ñëw continuer julleem ba bët set mu demaat ca ka ko jaayaan ne ko ña ma jaayan da may dama bëgg nga xàcc ma ndax ñooña fajar dong la ñuy julli du nu julli wenn waxtu ci guddi gi lu dul fajar xoolal tey bu fekkoon tey xanaa loolu bu ci senegal gi jotoon wala sunu réew mi wala ñun ñii ñu jot ci fajar gu jot ñu jóg julli bañ koy yéexe waxtu wu jot ci fajar ñu jóg ko julli ko booba yaakaar naa dana baax lool noonu nag la nit ñi jëloon seeni guddi ak seeni bëccëg def ko muy seeni bëccëg di koor seeni guddi di naafila seen digganteeg seen moroom ñu ragg seen diggante rafetal seen digganteeg seeni nawle ba duñ leen jëw du ñu teg ci seen ginnaaw ci seen ab der du teg ci seen alal lu jaaduwul du ñu teg ci seen njaboot nit koo xamante ni li yonante bi salaa salaam ne kenn ci yéen jëfam du mat ak mbaaxam du mat wala gëmam lu dul li mu yéene boppam daf ko yéene ab nawleem nit koo xamante ni sa nawle li nga yéene ci moom mooy toujours mu wàññeeku toujours mu torox boo déggee ñu ne leen nit dafa amoon ñàkk ak mbégte lay doon boo déggee ñu ne leen nit amut dara nga bég jàpp ne loolu la nit ñi de war nañ ku ci nekk di xalaat ñun ñi nga xam ne ay jullit la ñuy xalaat sunu mbokk jullit li ñu yëg ñu yëg leen nu ñu bëggale suñu bopp àjjana ñu bëggale leen ko àjjana ni nu bëggale suñu bopp taraangay àdduna ñu bëggale ko suñu bopp taraanga nag àdduna sëñ bi daana wax ne gisuma ci lu gën a gaaw liggéey taraangay àllaaxira nee na gisu ci lu gën a gaaw jaamu yàlla jaamu yàlla nag sëñ Fallu mu baax mi danaan wax jaamu yàlla ci jaami yàlla yi nit ku baax noonu lay def moo tax nit ñi ñi nga xam ne fu nu dëële duñ ko def ñoo xamante rendiwu buñ la jox mën nañ koo fóose te yonent bi salaa salaam nee na woon màndargay naa naafeq bokk na ci su dëlee du ko def su joxee rendez du ñëw su waxee la muy wax du dëgg loola nag jikko la yoo xamante ni du doon jikko yu rafet yonent bi salaa salaam nee na àdduna kasab jullit la waaye àjjana yéefar la xam ngeen ne ab kaso de ku fi nekk la nga bëgg a am lépp doo ko am la nga bëgg a mel lépp doo ko mel ak jullit sañut lu mu bëgg a def def ko lu mu bëgg a wax wax ko lu mu bëgg a xool xool ko déedéet aju ko lii mbiram lépp sunu borom daf ko koo limiteel te daf ko koo defal sax mu digg doomu yonente bi nee na aw sa awsatuha li gën ci mbir yi mooy li digg doomu jaamu yàlla sax da ko war a def ci digg doomu bañ koo sànjaafo yonente bi nee na kenn du jéem a not sunu diine ji lu dul diine ji not na la ci suuf am na ñoo xamante ni bu ñuy soog a tuub wala di julli jamono yooyu waxtu wu nekk dañuy julli yor seen kurus ji def waaye diir bu ndaw nga leen di gis ñu bàyyi ko ana jigéen ñi fi doon muuru tàmbali di muuru ba ñëpp gis leen ñu kii ñu jëkk-jëkk bàyyi ko ana ñi nga xam ne xale yi nga xam ne dañ daan xëy di dem ci jàkka ja di guddi seeni bëccëg seeni nafa naafila seeni salaatu seeni yëpp ñu ko doon defe ci jàkka ja ana ñu xëy xëy ko ci ko diine par ndànk-ndànk la laaj loo xamante ni kenn du ko jéem a not li la yàlla sa yenn loolu it yanu ko ndax diisut yàlla li yan du diise laa yukallifu laahu nafsan illa wasa waaye boo jéemee yanu ci diine ji lu diis da ngay mujj rek nga mujj fàq sax bàyyi loolu sax mën naa dem ba nga génn sax pour jéem bàyyi diine ji kon mbokk yi am rafetalaat jikko yi yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit de am na loo xam bu baaxee ci moom lépp bu baax waaye bu bonee lépp bon ñu ne ko mooy lan mu ne mooy xol nit ki bu xolam defaroo lépp li mu yéene boppam du ko la ko yéene moromam nit koo xamante ni place boo gis am ko yàpp nga ne place boobu yaa ko yeeyoo wala dafa war a jóg wala nit ki warul mel noonu lu tax muy mel noonu loolu nag ay sikk la yoo xamante ni dafa bari ci ñun ñi nga xam ne dañuy julli ak di woor di natt di def la nag nit daal xolam feeg baaxul dara baaxul yonent bi salaa salaam toog na ñaari jataay wala ñett wax ne kee di ñëw de am na kuy génn fii léegi ci kanam waaye nitu àjjana la nee na saa bu ko waxee kenn ci saxaaba yi génn ca am ku ca génne ba Omar ibnu Abdu Omar Abdullahi ibnu Omar na ko man de seen waa ji muy dem mu ne ko man damaa xuloo ko Omar damaa bëggoon a ñëw nekk sa kër ay fan mu ne ko waaw nee na bi mu dikkee xëram di ko xool waa ji du ko gis muy julli guddi di ko gis gisu ko ci genn jaamu yàlla gum gisut ci nit ñi mun ne ko man damaa gis yow yonent bi daa wax ci te yow man gisuma dara looy def te defuma ko yonent bi ñaari yoon wala ñett dafa wax ne am na kuy génn fii waaye bu ñëwee nitu àjjana la te yow yaa fay génn te boo dikkee gisuma yenn jëf jooy jëf ju bokkut ak jënd jëf mu ne ko waaw awma ko waaye sama xol bii de kenn koo xamante nii iñaane naa la ci dara wala jàppal naa la ci benn safaan amul buñ ma mayoon àdduna li ci biir ñu xañ ma ko teg may ab natt soppi ci sama jëmm dara du sopp sama jëf dara mu ne ko waaw kon loolu la yow loolu nga mën te ñun mënuñu ko ñun su nu amee su sunu ñàkkee dañuy daal di jàmbat sunu amee dañuy daal di wadd waddi loolu nag kon moo tax yow mën na ko moo tax nit ki na régler dimension xolam dimension xol mooy lan mooy nga régler sa xol régler ba doo doon sa jaamu bët sa jaamu biir sa jaamu bànneex yonent bi alxuraan nee na seytaane seeni bànneex bànneex yi seen bànneex seen seytaane la mooy seen ab seytaane maanaam noon bi gën a rëy ci yéen mooy seen bakkan bakkan mooy lan mooy bànneex bànneex suñ Moussa Ka loolu la wax seytaane ak dunia ak bànneex ku leen fital daane nga noon ya kon mbokk yi yaakaar naa ne ñu ngi ci catul jataay bi ñuy sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di leen wan ne lii dañ ko def rek ngir jàjj ci sunu bopp ak jàjjwaale ci ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ndax nit ki yaakaar naa ne bu ñu yëree internet bi leen ciy gën a waxtaane diw saaga ne diw diw xas na diw diw ak diw ñu ngi xuloo dégg nga wax ju ñaaw ji nit wax dégg nga wax ju ñaaw ji nit delloo nangam lool rek mooy internet bi ñu jël suñu temps bépp suñu itte yëpp suñu jot yëpp nga xam ne jamono yooyu ñuy seetaan internet ñaata salaatu ala nabi lan ci mën a def ñaata ixtifa istifaar lan ci mën a def ñaata sikrullahi lan ci mën a def te yonante bi nee na alhamdulilah ëllëg yomal xiyaam xajut ci balam subhaanallahi wa bihamdihi loolu nee na subhaanallahi al asim yonent bi nee nag loolu kenn du ko teg ci balance kenn kenn ndax balance attanu ko loolu ñaata lañ ci manoon a def mu gën ñu sànq sunu dund gi te dund gi lu gàtt la loo xamante ni dañuy dem rek tëddiwaat tëdd diir boo xam ne xamatuñ dara xamuñu ay ñaan dinañu fa fekk xamuñu sunu doom yi dinañu ñaanal xamuñu sunu jarbaat yi dinañu ñaanal xamuñu sunu kan danañu ñaanal li nu jëfoon ci alal dajale ko fi bàyyi ko fi xamuñu sunu doom yi fan lañ ko jëmee xamuñu sunu soxna yi koy doon xamuñu fan lañ ko jëmee loolu yaakaar naa tiitaange la war a doon ci nit ba buy jëf wala buy wut mu wut loo xamante ni daf koy wut rek ngir lislaam bu lislaam soxla rek moomatu ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yal na nu yàlla defal jàmm te defal leen ko ñu doxaat leen daje ci yeneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah